leneen lii nga xam moom lañ bëgg di ko wax mooy euh, doxina ku baax ki ku tedd ki Cheikhul Khadim dafa mel ni moom yitte yi mu doon doxe waxul na sax lu jëm ci li nga xalaat yow waaye àdduna rek nim ñu ci doon joxe ay ay am njàngale am njàngaleem yitte yi mu doon doxe maanaam Sëñ Tuubaa yitteem ak ak dogom ak farloom kenn du moom kenn mënu ko toppatoo waaye nag li wér mooy nun wax dëgg yàlla war nañu góorgóorlu roy ca doxit woowee ca yitte ja ak farlu ba bu ma ko waxee mooy murit yi lu ñu doon doon jàmbar ak lu ñu yaakaar ni jàmbar lan jàmbar sëriñ bi bu doon doxee téeméer nun ñaar fukk la aw ñaar fukk la ñuy bu ñu doon doxee juróom fukk dong di ko roy ci sëriñ bi kon kenn waxatul loolu Afrique sax kon lijjanti nañ leen kon nag nun suñu bopp noo war a xoolaat suñu bopp ak suñu doxin te lii ma doon wax ci dëkk bi ndax bu ñu toogee ba deux mille vingt deux mille deux di ko gis boobu bu ñu la nee noo ngi dox ni ñu war a doxe xam nañ ne doxuñu ni ñu war a doxe ndax lu war a mën a dañ fi saasi lu war a am benn fan di tege ci anam yëpp nag te loolu ci ñun la du ci kenn méthode d'organisation Serigne bu buñ ko jàngoon ci wàllu adduna dong méthode d'organisation rek ni mu daan jëflanteeg mag ñi ak ni mu daan doxalee bu ñu ko xooloon rek di ko jéem a royaat rek dellu si rek loolu kenn waxatul suñu mbir adduna sax mën leen leen di beneen bi topp nag mooy li ma bëgg wax mooy fii benn seere bu may seere mu jëm ci alaaji Babacar Ndiouga Kébé li tax ma di ko seere nag mooy bëgg naa Sëñ Tuubaa bëggal koo xam ne képp ko fa xam ne bëgg nga ko wala liggéeyal nga ko wala jàpp nañ ni gëm nañ ni buur ga bu boobaa duñ la du du du lu ne yéene nañ la ko jàppe nañ la jàppe jàppe nañ la lu ne lii nag du loo xam ni dañ koy def ngir yàlla muy seere su wér dund naa ko moom danaa ko indi nag ndax day am seere bi ma nekkee Arabie Saoudite di jàng université Roi Saoud Riyad ci capital bi booba laa ma a gis Ndiouga Kébé sëñ Abdul Ahad booba mi ngi fi moo yónni woon sëriñ Moustapha Saliou sëriñ Abdul Ahad moom sëñ Fallou ambassadeur léegi sëriñ Modou Mamoun Niang alaaj Jili Mbay alaaj Ndiouga Kébé su ma juumul yaakaar naa avion Jili Mbay lañ yoroon mu yónni leen Irak ci ndaje mu xewoon foofu sëñ Abdul ñu jógee fii Sénégal dem ca ndaje ma sëñ Abdoulaye yebal leen man nag bi ñuy ñëw riyaat bi ñu ñëw Jidda war faa jaar umra ci lañ ma woo xamal mu ne dañuy jaar Jidda ngir umra ma jëlee avion Riyad ñëw Jidda daje fa ak ñoom ngir ànd ak ñoom ci umra bi jàppale leen te boobu kat roi bi sax ci roi bi la moo leen di dalal waaye bi ma ñëwee photo yi ba léegi mu ngeeg man bi ma ñëwee sëñ Abdoul Ahad bu ko seetaanee xam na ko mi may dégg Serigne Moustapha Saliou Serigne Modou Mamoun Niang xëy na alaaj ji mbay ak alaaj njukka bi ñoo fi nekkatul waaye ñii ñi nga foot keroog bi ñu ñëwee ci hôtel bi ma jógee ba fekk leen fi ba nuyoog ñoom yi leen joxoon ngir nu war a dem umra ji màkk jógee jidda dem màkk oto bi nga xam ni oto yi taxoon man maa nekkoon benn oto bi alaaj ji mbay ak alaaj njukka bi nekk ci ginnaaw chauffeuru naar bi ne ci kanam ñun ñeent ñu jëm màkk yeneen oto yi juble sëñ Abdoul Hadj ñoom sëñ Modou Mamoun ñoom sëñ Moussa ñu nekk ci yeneen oto yi juble bi ñu ñëwee keroog man maa doon tawaaf makkatal mukarrama ban fa jógee bi ñuy dem nag diggante boobu ci laa dégg Ndiouga Kébé di wax ay wax yoo xam ni ay xalaatam ak ambition ci Touba lii ñu ñi ko fekke woon am na fi ñu fi nekk man ci oto boobu laa nekkoon ñun ñeent rek ñoom ñaar ci ginnaaw moo Alaaji Jili Mbay man ci naar bi yeneen oto kilifa yi des dugg si ñu jiit la jëm màkk dem dem benn umra bay dellu si ak bi dem lépp dégg naa Ndiouga Kébé li muy wax ci xalaat ak lii yéenam ci Touba keroog laa ko jàppoon ba léegi lii nag maa ko dund moom kenn dund ku maa ko dund ba fa jógee ba dellu si ci oto ba ca ngoon sax bañ ba salon d'honneur maa ngi ñoom ànd nañ ba salon d'honneur fa lañ tàggoo keroog man ma dellu Riyad ñoom ñu ñëw Sénégal beneen yoon laa fi gisaat benn yoon laa ko fi gisaat mooy di ko sëñ Abdoul Hadj di gan si biir Dakar ma ñëw vacance jógee Arabie Saoudite ñëw vacance yem ca ngan nga muy ñetti fan yooyu mu doon sëñ laa doon ko gane wala ñaari fan déggoon naa ci moom nag ay xalaat gi dégg-dégg yoo xam ne am na loo xam mën naa ko firndeel fii li tax ma ko wax mooy dama dégg fan yi ay wax yoo xam ni wax yi dama yaakaar ni sax xëy na def ko nar a yokkaat ngir génération bii xamul woon bu nit ñi xam xamlee loolu moom ñu xam ko ci moom ñu xam ko nag ak ñu ñàkk koo xam moom li mu amoon yaakaar naa ne loolu kenn ku ne ci rek sa bët bu dee seere ngir am na wax yoo xam nag ndax làmp boon ca jubaa ja moo ko fi defoon dindi ko ay nangam ak i nangam yow kooku wér na ni làq na ngërëm Sëñ Ablaat waa kër sëñ Basiru ñoo doon sëriñam alaaj Njooke bi mais moom yemul woon ci kër sëñ Basiru mbooleem ku bokk ci kër Sëriñ Tuubaa ci kër yëpp ñu may seetaan di ngeen ma dégg amul genn kër goo xam ni taxawu fa jëf fa jëfi mu saadix yoo xam ne kenn ku teg teg sa bët loolu li muy murid saadix moo di ko wax kër gu ci nekk naa kër yëpp kenn ku ci nekk moom yemul ci kër gi mu rek kër Sëriñ Tuubaa yëpp laa la wax Tuubaa nag moom loolu kenn du ko nettali tali baa ngi nii ñu daan tali Njóoba Kebe forage baa ngi nii mu def ko fi ñu naan forage Njóoba Kebe tuddewu ko boppam mais jëf ji moo dem ba ci yàgg nit ñi di ko tudde noonu naan tali Njóoba Kebe ndax moo ko fi defoon li ma doon dégg nag mu di ko wax man ba nekkee diggante Jidda ak Màkka nun ñeen rek ci oto bi nee naa la ca jàppoon ca laa ko jàppoon boobu xamu xaw ma sax ak njabootam miinantuwuma ñu xaw ma leen ginnaaw bu ma ko gisaatee wax naa ko mooy Dakar ku ku def lu mel noonu nag yaakaar naa ni ak njabootam sax defoon nañ fi benn anniversaire di ko fàttali ko waaye jot naa nag jaaduwaatoon na sax tey ñu defu téléfilm wala yeesalaat loolu ngir génération Mouride Sarr bi nëpp ndax li ma wér mooy jamono ñi mu tollaloon jamono bokk ak ñoom man-man ca wàllu alal amu ci kenn koo xam ne ni njigo doon defe ci yoon Sëriñ Tuubaa defe nga ne noonu amul ba léegi te amagul nag ba léegi amagul tali bii ma leen wax forage bi kër yi mu nekk këri boppam yi mu Tuubaa kebe deux kebe mat na juróom-ñaari kër loolu moom mbirum boppam la waaye li ma wax daal jëfam ak Sëriñ Tuubaa ku dem ba doomi Sëriñ Tuubaa xalif général di bud ku xam Sëriñ Blaat jóge Tuubaa ànd ak délégation addund kenn xamuñu toll ñu ñëw ba Dakar di la gane si kooku yaakaar naa ni kuy wax ci moom dara wax dëgg yàlla di nga perte sa temps wala da nga ma da nga da nga waxaat loo xam dafa war dafa wax ñu war a ko xamaat suñu bilaat gane la bu loolu jàllee li tax ma wax loolu mooy waxuma sax ci digganteem ak yoonu murit bu ñu tegee fee loolu waaye loolu mooy farata ji waaye sunna ji Sénégal donc bu ñu amoon ngor gouvernement bu ñu amoon vision te mën a delloo njukkal nëga ni war naa fekk tey méridien présidence dañ ko doon résidence El Hadji Ndiou Kébé wala ñu tuddee ko tali ab autoroute wala leneen wala école wala dara waaye tuddee nañ fa ku ne li nga xam ne Sénégal yàgg nañoo xeex ñu mel noonu ndax gisuma fenn foo xam ne ah xawma ko fenn foo xam ne mën nañu tudd nañ ko Diohine ci biir réew mi te amul benn opérateur économique wala am defar boo xam ne ni mu déparé moom ci gis-gisam ci Sénégal gisagun ba léegi keneen ku def loolu te loolu dama koy seere ngir jëm yàlla benn Ndiouga Kébé li tax ma wax ko doomi daara ji mu doonoon doomi daara moo indi ak lii ñu wax ci moom te du dëgg doomi daara la woon Ndiouga Kébé ab xaalisam ci bitim réew la ko jëlee te doomi daara la woon ci alxuraan la woon jàng jàngul français moo mënoon président bu fi nekk moo la moon ci vision moo xam ne dañ ko ko doon xalaatal wala mu wut ñu waaye li wérti wóor mooy danaa ci indi exemple gis nga Auchan yi ñuy wax su Ndiogou Kébé doon dund ñaar fukki at bu ko fi amaatoon Auchan du jaar Sénégal Sam Ba ca wetu Abbas Ndaw booba supermarché bi njëkk am ci Sénégal nit ñi di ko seetaani seetaani seetaani soo Ndiogou Kébé ko nga xam ne chaîne de distribution moo ko njëkk xalaat Sénégal lu jëm ci wàllu santé clinique yi ñuy naw léegi Sénégal nan clinique nangam clinique nangam clinique Hubert clinique bi gën a fo bi gën a riche Sénégal ëpp fi ci jamono yu njuukee moo ko tabaxal moo moo ko moo ko xalaatoon clinique Hubert ñëpp xam nañ ko beneen bi topp bu dee ci wàllu immobilier dégg ngeen immobilier immobile kebe nangam nangam dem na ba ci wàllu finance banque sénégalo-koweïtienne bu ko moomul woon itam quatre vingt pour cent yi moo ko moom banque sénégalo-koweïtienne ku ne xamoon na ko bu compagnie assurance mu taxawal ko dem na ba wàllu restauration avion yi nga xam ne ñoo nekkoon aéroport Dakar avion bu ma saan wàcc lekk yi leen di jox bu ñuy dugg ci avion di dem restaurant yi ko doon yor Ndiouga bi moo ko moomam kon loolu xoolal yooyu vision hôtel yii boo demee Tambacounda jamono yam fay def hôtel yaakaar naa ne gëw mu ni hôtel am na fa wala bu fa amee benn lay doon xoolal kooku vision bi mu amoon ba noppi nag amaale woon ko ci biir Touba. waaw kon daal loolu li ñu bëggoon wax foofu rek ngir indi ko sax mooy ñaaxaale ci ñi nga xam ne ay opérateur économie lañ ak ay homme d'affaires lañ te bokk ci yoon wi. ndax xalaat yu mel ne ku ko amoon yii ma leen wax yëpp benn bu ci nekk jamono yam koy xalaat kon da lay wér su fi nekkoon tabax nay hôpital su fi nekkoon ni kon ay banque kenn waxalewu ko kon emploi nii mu manqué sax kon Touba gi yaakaar na ne kon ay kon nag loolu xëy na ginnaaw benn nit ko doon xalaat nit ñi jàmbaar lañ taalibe yi homme d'affaires yi opérateur économique waaye nag dina ba dina baax ñaari opérateur économique wala ñett dajaloo xëy na sama xel mën naa dem ci ku yor transport mbay saar wala keneen ñu wut benn compagnie boo xam ne compagnie de transport la boo xam ne day jëm si Touba ñu bokk ko du tee nag kenn ku nekk domaine ba nga xam ne yaa ca man moom di ca def la nga cay def nga def ko waaye nag ñu dajaloo nag def loo xamante ne bii day jëm ci wàllu googu bu bu dee ci lu mel ni usine yoo xam ne day a tàmbali fi ñu toll nii ba léegi jógaatuwul xam nga ni usine farine ku ko indi woon fii ci Touba da lay wér ni lam lay jëriñ xam nu mu toll di nga créer emploi ba noppi dana dana dana demee noo xamante ne bii dana taw féex ci ñu fi nekk ak yeneen domaine yëpp nag xaju fi mu ne su ko wax kon daal yaakaar naa loolu li taxoon ma indi ko ay seere la yoo xamante ni moom lii man dund naa ko moom ak El Hadj Babacar Diop Kébé